une heure di benn waxtu jot ñamoon ak ñaas yaa nekk ca Casamance ñi di ko génn ci xibaar yi. li ci gëna a fës examen BFM tambal tay ci altiné ji élèves né li ñu leen jox dissertation yomb na ministre yor njàng mi rafet nu li lepp jaaragum yoon ci examen bi lu bess ci mbirum ciowal suuf ca ñamoon nek ci Casamance juróom-benn nit ñi jàpp jëbal nañu ñeen procureur bu Ziguinchor tey suba ñi xaar xam fu ñu fété walu xey ci Sénégal li mu contrat yi dafa wàññeeku ci at gën di 2023 wayé nak entreprise yi taxaw dafa gëna a ci réew mi mu fess nak ci rapport bu ministère du travail mbirum ñetti délégué personnel personnel yu CBAO yi ndàqoon inspection du travail nangu ko wante ministre bi bañ ko ñom ñetti délégué yoyu xeyon tay liggéey yi waaye dañ leen duñ fa dugg askanu Sali Joseph nek ci diwaanu Mbour juk taxaw pour xex dogal bi sen maire ba jël jëm ci toj case des tout-petits ak fay des jeunes ba fa nek euh, pour def euh, poste de santé dañ ci xibaaru bitim rew xibaaru tagateram ni ci yéenekaay yi laata ñuy joxee la gis-gis ci ñuy tay tey coow li juddu gannaaw nomination yu mujj yi mbirum mbokk ak xaritoo fës ci lool mu nek li gën a ci xibaar yi déglu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndioukou Diène Maysa sambai mo nek ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar diggu bëccëg gi dañ koy door ak eh, cawul eh, suuf la am eh, ci forêt classé bu ñamon juróom ben nit ñi ci japon dal di leen di procureur bu sor tay ci suba ñom nak li leen di topé moy nak di jaay terre ci bërepp bo xam forêt la ñi xibaar bi nak ñi koy kiñ ko jox ci sunu ndaw lañu togal di ci sor di Lamine Ba di topp mbir moom wax ci wàllum xëy ci euh, Sénégal ak euh, rapport bi nga xamante ne euh, direction statistique bu ministère de travail daal dina koy génne ñoom ni ñu xam ne moo di ne fi mu toll nii li mu nag contrat yi dafa wàññeeku ci atum 2023 téeméer boo jël wàññeeku na fukk ak juróom waaye nag li ñu nemmeeku moo di jamono jooju nag li nga xamante ne mooy entreprise yu bees yi ñuy taxawal dafa yokkutam tam téeméer yoo jël fukk ak juróom yokku na ci leeral yeeg Boubacar Dieng rapport bi di xam ne ni si atum 2023 juróom ak benn yu toftal fanweer rek juróom benn nit rek ñoo am liggéey ees lim gi daal di wàññeeku lu tolloo ko fukk ak juróom si téeméer boo jël buñ ko méngaleeg atum 2022 liggéey yu yees yi nag mu doon juróom fukk si téeméer boo jël yu toftal ay poñ ajuwoo ko contrat yi nga xam ni dafa am àpp fanweer ak benn toftal ay poñ itam ajuwoo ko yi amul àpp juróom benn toftal ay poñ contrat stage ak itam li nga xam ni juróom ñoom la yu toftal ñaar fukk ak juróom-ñeenti poñ ci téeméer boo jël mu doon contrat yoo xam ni si ab saison la aajowoo si boobu la jamono nag nga xam ni limu liggéeykat yi nga xam ni dañoo am salaire mi ngi wàññeeku entreprise yi ubbeeku ees gën a bari ndaxte si atum 2023 lu tolloog ñaari junni ak fukk ak ñaari kërug liggéeykaay daal nañ leen ubbi mu doon ak yokkute ngu tollook fukk ak juróom si téeméer boo jël méngale ko atum 2022 liggéey ñi si créé tamit daal di bari lool yokku ak juróom-ñeent si téeméer boo jël si boobu la jamono itam téeméer ak ñaar fukk ak ñetti këruk liggéeykaay daal dinañuy tëj seeni buntu tax itam ñu ñàkk si lu tollook juróom téeméeri liggéey yu toftal juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent rapport ba tey di ñu xam ne nag lu aajo woo ko li këruk liggéeykaay yi waroo ak seeni liggéeykat toll na si 430 436 liggéeykat yoo xam ni dal nañ leen enregistré si IPRES aajo nag li ñuy cotiser liggéeykat bi ngir bu feebaree mu mën a faju ñetti junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett ak ñaari këruk liggéeykaay Temir dal nañuy cotiser lu ëpp téeméeri junni si seeni liggéeykat ajowook nak li nga xamni modi ji dox ci biir yi inspection yi xam ni dal nañ fay indi lu tollok juróom fukk ak juróom-ñaari jàppante jot am si këruk liggéeykaay yoy ñeen fukk ak ñaari jot nañ ko safral 2023 itam juñuy l'accident wala xétu feebar am na si këruk liggéeykaay yi ba kenn jot bakkanam ci këru liggéeykaay yi ak euh, coow la am ca banque bi di CBAO ñetti délégué de personnel ñu dàqoon leen ndax grève yu ñu fa doon amal inspection du travail daal di ci woon ànd waaye ministre bi ñu dénk wàllu xëy mi ne moom àndu ci loolu leen teg ci suuf waral sax ba ñoom ñetti délégué yi ñu dàqoon tey ji suba ñu bëgg dem liggéey yi waaye dañ leen duñ fiy dugg ñu nga xam te ne ñaawlu nañ ko nee na xeex bi dañ koy wéyal Fama John la journée du 19 nek na journée bu mag ci le monde syndicalisme mo ñu may tay autorité Sénégal joxe un avis favorable à la réintégration des délégués yi nga xamante dañ leen a licencié won tay ñun ñu am ci mbégte ak contentement bu mag mag mi mel na ni yàggul bi xibar bi daano rek ci la melni ni yëf tambali wat té ci altine ji Pape Doudou Tunkara Mansour Diallo ak Alioune Seck ñetti représentant personnel CBAO démon ngir liggéey yi ni ko ministre du travail santé ba ñu demee nag ñu téye leen ca buntu ba Raoul Kali mooy chargé de revendication yorut kàddu collège des délégués bu CBAO. à notre grande surprise suñu collègues yi tey dañ leen a tere dugg ci banque bi nee nañ duñu dugg ci banque bi maanaam amuñu même respect pour autorité Sénégal yi nga xamante dañuy toog te joxe ay instructions pour que ñu valider donc foofu pour wane rek attitude nit bi nekk suñu suñu kanam donc tey wane na boppam wane na boppam fépp ndax tey dafay salfaañe sax ay décision wu autorité sénégalaise amatuñu fan la ñuy yóbbu suñu bopp. juróom benn weer a ngi nii CBAO daq ñett ci ay liggéeykatam ginnaaw bu ñu amalee ab grève bu yàgg ci loole nag ministre bi daal ne àndul ci dàq bi bile na ñetti liggéeykat yooyee jël ci seenu barabu liggéey waaye tey ba ñu xëyee dem ñu aayal leen ko ginnaaw xibaar bi nag ñu jokkoo ak directeur des ressources humaines bu CBAO waaye lim ñu xamal mooy bëggul yooyu yàbbi ci lii xew tey. Fama John inaar tegal juróom benn minute euh, ci euh, Pikine Tali bu bees ak Pikine Tali bu mag. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu ci xibaar yi wax lu soxal walu njàng mi ak examen bi di BFM daal di tàmbali tey jii lu toll ne nag ci lu ëpp euh, téeméeri junni ak juróom-ñeent fukki ndongo yo xam te ne am euh, BFM di euh, brevet bi len di may ñu mën dem ci seconde tay nak ñing ko tambali ak épreuve dissertation candidat yi nag ñoom épreuve yi jox ñaar ben bi aju ci livre bi di vol de nuit ben bi nak aju ci xarala yu bees yi jëfandikoo gi élèves yi nag ne ah, si j neen jox ñaar yëpp yomb na reportage Salamata Ousmane Diallo ngir dalal xelam ni lépp mu ngi daal di jaar yoon jori bi ñu dénk wàllum njàng meek njàngale mi di daal di samp aw laaj digganteem ak ki nga xam ne moom moo di présidente centre bi. en situation d' handicap. il y a des dispositions aussi qui ont été prises. on a pris des dispositions mais on en a pas cette cette ah, année. fii ci collège Serigne Cheikh Anta Mbacké bu Guédiawaye ñu gën koo xam ci SEM Canada ay absents nag jot nañ ko fi ràññee. Qui est le premier jour de l'examen de BFMB? Nous avons noté 6 assassins, dont 3 filles et 3 garçons. Et pour le surveillant, comment est-ce nous sommes présents? Nous sommes les médias de Dorleï, qui sont du Cap Vert de Pékin. laata sax nag ñu daal di pare visite bi gis nañ ni yenn ci ay candidat ñoom joxe nañu seen copie ba génn Hélène di kenn la ci ñoom di jàpp ni épreuve français yi ñu leen njëkk a jox dalal na seen xel. épreuve bi moom tane woon na ma xaw ma nag pour ñeneen waaye bi moom tane na. pour yow yeneen moom yaa am na mel ni bii nu mel rek. 6 et 1 bi bol de la. de g ñaari waxtu ñu daal di visiter SEM Canada ak collège Notre-Dame du Cap-Vert bu Pikine épreuve yu njëkk bu BFEM 2024 lépp nag mu ngi daal di jaar yoon ci ñaari centre yooyu Salamatu Ousmane Diallo Pikine rajo Futurs Médias. Salamatu centre yooyu ministre éducation nationale demoon tey ji ci suba ngir xool examen na mu fa tëddee ca Pikine ak ca Guédiawaye bu ñu ci noppee nag moom ministre bi nee na xel dal na ndaxte lépp mu ngi jaax ci yoon ci wàllum BFM bi dañ koy déglu moom ministre éducation nationale Moustapha Guirassy. waa sant yàlla ci euh, déroulement boo xam ni bu ba léegi euh, mi ngi jaar yoon euh, li ñu gis mooy. Euh, amul benn surveillant bu absent rarement la ñuy signaler ay élèves yoo xam ni absent nañu te lu ci bëri donc ay juróom-benn par exemple centre Bélé moom la ñu dénombré am tamit ay instructions yoo xam ne joxoon nañu ko mooy euh, képp koo xam ne da nga am laago muy euh, silmaxa muy koo xam ni gis-gisam metti na maanaam gis bi gis bi jafe na loolu tamit dañu joxoon ay instructions

déedéet du encore xam nga table yi nga gis sax euh, table ñaari place la kon amul benn problème mu nekk mais li ci am solo mooy surveillance bi règle yi tamit ndax respecté nañ ko maanaam ordinateur wala portable dara bañatu ko ba pare zone bi ngay wax nii dañu renforcer surveillance bi moins d'élèves donc ci classe bi mais aussi avec plus de surveillance donc lépp ngi jaar yoon te élèves yi alhamdulilah mu nekkoon ministre Moustapha Guirassy ministre bi ñu dénk njàng mi gannaaw tey bi mu doon nemmeeku béréb yi ñuy defee examen BFM des ba léegi ci wàllu woowu ca Fatick nag eh, ay matuwaay jël nañ ko ndaxte BFM bi dafa yemoo jamono nawet bi kilifa yi nag ne ak lu mënti xew daañu mën a wéyal examen yi ki nga xam te ne mooy inspecteur d'académie di ñaax élèves yi tamit lii di seen portable ñu bañ nga ko yóbbu ci centre examen yi am nañ suñu caabi. tey ji yi def tournée ci centre d'examen examen BFEMI ren ji nag nee ci région bi lu jege touti 14000 élèves ay candidats lañu ñu nak ñu nag fi mu ne am lu ëpp ñetti junni enseignants yo xamni ni mobilisé nañu leen pour ñu surveiller tay tam corriger BFM bi Cheikh Yaba Diop moom moy inspecteur d'académie bu Fatick. am nañu fukk ñetti junni candidats yu toftal juroom ñaar témèr ak juroom fukk ak juroom ñett candidat yu ñu ngi leen yóbbu si eh, juróom-ñett fukk ak ñeent centre ak eh, témèr jury li ñu war mobiliser si si ay jàngalekat nekk ay surveillant ay correcteur président jury wala ñi nga xam dañu war a liggéey si secrétariat seen lim toll na si ñetti junni ak euh, ñun fukk ak ñaar. ci centre d' examen yi nag salle de classe yi aménagé nañu leen ba élèves yi bu ñu ñëwee mën a def seen i examen ci condition yu mucc ayib ne ñu itam jël nañu ay matuwaay ba fàggandiku benn perturbation bu mën a am su tawee. wax ni nag matuwaay yëpp jël nañ ko kaaraange gi dina mat sëkk. Euh, CRD bi ñuy mujjee amal pour waajal examen yi autorité administrative yi jël nañ matuwaay yëpp. inspecteur d'académie bu Fatick nag di wax ne comme ni mu amee woon ci baccalauréat bi ci BFM bi itam dañuy tere élèves yi ñu yóbbu ay portable ci centre d'examen yi. candidat yi maa ngi leen di fàttali. portable wala lépp lu xeetoo portable. yore ko si biir centre dañ koy aaye dañ koy tere. ah tere yooyu nag bu ma sañoon. candidat bu nekk da nga wàccoog moom pour que. benn sanction du dal sa kaw. résultat définitif yi baccalauréat yi sax moom wax na ci nee ñu bu ñu xoolee élèves yi nga xam ne ñoom ñoom am bac ci région bi téeméer boo jël ñeent fukki ak ñeent ak lu ko topp. ñëpp am nañu bac ñetti téeméeri élèves yoo xam ni am nañu ay mention résultat bi nag baax na waaye nag yu daaw yi ñoom ñoo ko ëpp Aminata Goudiaby Fatick des ci njàng mi waaye bi yoon ci njàng mu kawe mi la ñuy wax ak nag fac science bu université Cheikh Anta Diop Dakar tey nag la ñu tàmbali seen atum njàng bi weesu di 2023 nga xam nag ñooy tijaan nekk ci l ñoom nag xëyoon tey pour dem njàng yi waaye dañu fekk amphithéâtre ñeneen di fay def examen waral salimata mu jaaxle loolu étudiant bi yërndu amphithéâtre set bu faculté des sciences et techniques mu am mbetteel ca fa fekkee ay nit ndax kat dañ ko woowoon tey 11h ngir mu tàmbalee cour yi gannaaw juróom-ñeenti weer yi mu doon xaar yépp dèjà biñ ñëwee nii nii war nañoo def cours tey nii ñu ñëw fekk fa ñeneen ñi def examen te cours yooyu noonu dinañ ko te doo xam ndax dinañ ko rattraper wala dañ ko rattraper te aussi avertir ñu quoi parce que mu jëmul juin lañ toogoon juin 2020 23 je pense mm-hmm. presque un an mu ngoog dèjà boo ñëwee benn benn licence 1 mën nga ko def sax 2 ans parce que année bi ñu fa demee woon. tàmbali cours yi nag tey jii tax ba yaakaar juddiwaat ci Abdou Niang nekk étudiant ci licence 2 moom nag mu ni jot naa def ay recherche ngir bañ réer ci njàng mi. li la ñu doon xaar quoi waaw parce que toolaay bi yàggoon na trop. la boole satisfait satisfait quoi waaw si assez outil ah, ya parce que fan naa ne vacances yooyu noonu da war a defoon def des fois ay recherche yu ndaw di waajal sama bopp parce xam naa ne à tout moment mun naa mun nañ delluwaat ñu si bëri nag xaar gu yàgg googee tax na ñu wan gannaaw njàng mi mu xam nag di ñu ko xamal te sax nag muy ñaax autorité yi ñu xoolaat façon bi ñuy jàngalee foofee si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nga xam ne kat lii ci lii daal lay toog ñaata mois jàngu ins bi amul mu tamal de dama reprendre L L L1 e. aujourd'hui système bi baaxul da ngay jàng bi bëgg a dee imagine ñu dëkk ci village yi ñëw ñu am fu nekk am ñoo dañu avancé na déggoo ma premier examen ak à cause de manifestation tout ça daanaka étudiants yi bëri ñoo ngi def si examen

wéy ci xibaar yi wax ci leneen di ñaxtu baskanu Sale Joseph nekk ca diwaanu Mbour ñoom nag dañoo xëy eh, ay morceaux yu xonq ngir nag ne seen ñàkk ànd eh, ci dogal ba maire ba jël di nekk dañuy daaneel case des tout-petits ak foyer des jeunes ba fa nekk ngir nag daal di fay tabax benn poste de santé ñoom nag eh, ñaawlu ne ñu tële maire bu ñu gis ne dafa tële maire boobu di maire Sali di Ousmane Gueye Ndeye Mati Dieng. askan wuy yeewoo ci Saly Joseph li ñu gis mooy xel nanguwu ko te itam wul maanaa ñu toj ab case des tout-petits ak foyer des jeunes ngir tabax poste de santé maire bu Saly di Ousmane Gueye moo ko bëgg def bu ñu sukkandikoo ci Alioune Ndiaye. teguwul fenn te d'accord ñu ci tey d'accord ñu ci suba. Saly Portugal bu mu nekk fee. avant moo dolé maire bi. da koo tabax ba pare. bo xalé yi logé mu doora toj mais c'est hors de question ngay toj te amo fo dugal xalé yi loolu mënuñ ko dégg te ko nangu ñun wa salé gisun suñu bop ci maire bi vraiment ñun sonu nañ si sa doxalin seen jafé jafé yooyu ñu ni bari na tax ñu ci dikkat ben ben sofi fi maire salé mairie Saly bi tey gisuñu njëriñam ndax suñu cimetière yaangi ni nii collecté wuñ leen suñu terrain football bi kolok ngi nii wuñ ko suñu tali baangi ni ben benn doodaan moo fi nekk ñaata accident lañu enregistrer ba wa dëkk bi ñoo obligé jënd ay def ko ci tali bi loolu du yoon du dëgg du yoon terrain bi nga xamante ne mu ñoo ngi ko proposé woon pour pour marché bi tey xamatuñu si dara loo nga tey boo ñu bëggee taxaw fii ci benn sali askan wile kon dëkk file ci sali Joseph daal di génn takk ay morso yu xonk ne dañuy woo kilifa yi buñ sañoon nag lii nii nga dellu si ginnaaw lum la jaral benn nag jaral ñun ñu ko fukk te tamit lii boo ko bëggee def xamal ne di nga ci kay aw neew tu vas marcher sur des cadavres les autorités. bu dee nag lu jëm ci maire bu Saly di Ousmane Gueye jëm nañoo jokko ak moom waaye mujjul antu. Ndeye Mathi Dieng Mbour rajo Futur Media. Ndeye Mathi Dieng del si fi ci Ndakaaru wax ci geneen caw ci caw lu dox diggante eh, kii di Diop Sy ak waa cité Almadies 2 ñoom nag dégg ngeen seen xibaar yi ñu weesu doon wax ne dafa eh, takk loxo eh, seen i yoo xam te ne dañ ko jagleeloon béréb bu féexlukaay ak tamit béréb bu fo pour xale yi ñu bëgg ko tabax te loolu duñ ko nangu directeur des travaux di kenn ci jege jegeñaale Diop yi ne loolu wu ni ni mu demee moo di ne terrain yooyu Diop Sy moo ko moom ndaxte état bi boo ko jox sax. xam ne ne dañuy plainte euh, gannaaw bi nga xam te ne dañoo yàqate liggéey ñoon amal foofu la ca béréb ba dañ koy déglu moom directeur des travaux bu Cité Almadies 2 Babacar Touré. ñun on a nos papiers on a tout yoo xam ne def nañ ko foofu ba actuellement ni je suis là-bas au niveau de euh, Almadies 2 pour constater li ñuy yàq foofu maa ngi nii ak suñu huissier

duñ fa yàq képp lu fa waa yàq rek constaté nañ ko pour essayer jël ko ah, ah, pour ñu kii ko pour ñu yóbbu leen si yoon mais parce que moo defar cité Almadies moo ko terrassé moo ko moo moo defar terrain yi. y' a mille sept cent habitants foofu mille sept cent habitants yëpp jub si moo ko terrassé. ñoo moo ko defar état bi fay ko ko. ça ça doit faire quinze ans léegi on a nos papiers depuis quinze ans. nekkoon Babacar Touré directeur des travaux ca UDE moom nag lañ dénk cité Almadies 2 daaneel ak wàññik njëg yi nga xam te nguur gi dogal na ko boobaak léegi daanaka mët na weer waaye ca kaw la askan wala ñu set moo d ne commerçant yi lu leen neex la ñuy jaayee topp ñu dingal bool boobule ni mooy mburu li nga xam te ne wàññi poids bi naka noonu tam njëkk yi reportage Fatou Mbow. wàññiwuñ dara. ma ne li ma doon jëndee saako daa koy. wàññi lii di njëgu yenn ci ay dund fii nekkul lu ñu jëmmal ba tey buñ sukkandikoo ci kàddu yenn ci ay soxna yu ñu dajeek ñoom ñi nat di ñaawlu situation bi am. ci marché bi. ñu wàññi ceeb bi daal wàññi ñu diwlin gi mboolem dund non non defewuñ ko de. waaw am nañ wàññi waaye wàññi moom demewul noonu wax dëgg yàlla. waaw lii di mburu bi nag nekk na lu jaaxal asko sen di sëngeem ci mbir yu ni mel terewul. El Hadj Badio di xam la ne amna yenn ci ay commerçants yu sàlloog dogal yu ni mel la amna pri yo yoo xam ne wax deug yalla ñu ngi koy respecté mburu bi mais dañu gis ni boulanger yi dañu defal benen format bo xam 140 cent à 125 alors que mburu bobu non dafa tuuti tuuti bo xam wax deug fi yalla pour dag ko ak sey famille wax deug fi yalla fu tuuti fi ci région bi ñi ngi ñaawlu qualité mburu bobu nga xam ne wax deug yalla jëm ci wàllum mburu bi nag jaaduna ñu gën ko waxtane ak ñu bok ci wàll gi ngir mëna a way jëfëndiku yi ci ay kàddoom. dinañ waxtaan ak chef régional du commerce waaye tam di discuter ñi nga xam ne ñooy defar mburu bi pour que ñu xool qualité boobu nga xam ne fa dëgg yàlla muy ci ci marché bi te kaw la ko ay yu bëri bëri bëri bëri kenn bëggatul ci mburu boobu. soxna yi nag di wëy di dund lu jafe gannaaw fukki fan ak juróom bañ jëlee dogal ngir wàññi yenn ci ay njëgu dund fii ci diwaanu Saloum yenn ci ay woy jëfandiku di xam ne néew na loolu koppar gu ñu teggi ngir mën a wàññi li njëkk. Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Média RFM bitim réew. xibaaru bitim ah, foofu nag grève ba jeex na ca université bu Brazzaville. toog nañ ñeent fukki euh, fan ya nga xamante ne liggéeyu ñoom liggéeykat inter intersyndical bi nag xam leen ni ne euh, bàyyi na grève boobee tegal na ko ci suuf professeur yooyu li ñu doon sakku moo dañu fay leen seen i salaire yu bëri nga xamante ne jotuñ ca waaye ci mujjantel ka fay nañ leen ñaari weer umu kalsum li. gouvernement bi intersyndical bu université Marien bu Ngouabi ca capitale bu Congo Brazzaville fexe ne bañu fay salaire professeur yi weeru avril jàpp weeru mai weeru avril ak weeru mai weeru juin nag war nañ koo fay ci semaine bi ñu jëm collège intersyndical ma ngay xaar itamit ñu fay ñeenti atu arriéré vacation yi ba tax na ñu ngi woore gouvernement bi mu fay mu mu waree payooru enseignant yi nga xamante ni ak grève bi ñuy amal ña ngay rek jot soutien wu ñi nga xamante ni ñoo di ndongo yi loolee la porte parole intersyndical bi xamle Célestin Niama collège syndical ba ma ngay woo rek gouvernement bi ñu fexe bay fay payooru agent université Marien Mouwa bi bi nu mu waree muy jeexal di wax ni collège intersyndical bi dafa jël dogal ni day daqal lépp luy grève générale bi mu dàmbali woon ci juróom-ñetti fan ci weeru juin atum 2024 tey woo rek liggéeykatu université yu Marien Mouwa bi yi ñu delluwaat seen bërëbu liggéeykaay altine ñaar fukk fan ak ñaar ci weeru juillet atum 2024 at ñu weesu nag intersyndical bi da doon faral di amal ay grève ngir rek laaj seen ay payoor ba tax na mi ngi woo rek gouvernement bi mu xaatim ab protocole boo xamante ni dana ci bind loo xamante ni dana nekk lu leen di lënkaleeg moom tey tamit jàmm ji dana sax daj ca université ba. wax ci ay wéy diggante Israël ak Hamas ñaari otage faat nañ leen ci euh, diwaanu Palestine. keneen kaa gi wuyoo Yageef euh, Bouchtab am fanweeri at ak juróom keneen ka Alex Dansi am juróom ñaar fukki at ak juróom benn ñoom nag ñu leen yóbbu woon euh, ñu leen andi woon xama congol. Hamas ci 7 octobre ci Israël ci am communiqué forum bi né nak seeni Fatou lolé woné né rek jamp na ñu bayyi otage ñu wat seeni kër ci Gaza mom jamono joju ministère bu yor lepp jëm ci wër gu yaram bu Hamas xam le ab bilang bu Yes 39000 mille euh, euh, ci doomu aadama ak juróom ben euh, ñoo ñak seeni bakkan bi guerre gi doré ba légui guerre gaangi ni def na ben yi wër gën ka tuuti fan ñaar fukki tak ñet lañu faat ci ben ci euh, benn bés euh, loolu la communiqué bi xamle ne itam ña ca jëlee ay gaañu gaañu daanaka dañu mot quatre mille euh, ci doomi yaadama ca bande Gaza bi guerre bi dooree ba léegi juróom-ñaar juróom-ñaari fan ci weeru octobre ci Espagne premier ministre bi di Pedro Sanchez dañ ko déglu fanweeri fan ci weeru sulet ab juge mooy def li ñu mel ci ab enquête bu nga xamante ne ñu ngi koy jëmal ci ay tuuma guerre ak trafic d'influence bi jëm ci soxnaam loole tribunal bu Madrid moo ko xamle tey qui ci suba ci ab communiqué juge d'instruction bi dana ko déglu mom jiital gouvernement ba ni ab seede euh, ci palais de la Moncloa di résidence ba nga xamantene mod résidence officielle bu njiital gouvernement ba. dem ci euh, Amérique euh, wax ci président ba Joe Biden bi nga xamantene du nek candidat ki nga xamantene nak mom taftal ci mom di Kamala Kamala Harris ñu ñot ne ni mëna naa wati vice présidente ba bëgg remporter li nga xamantene mod investiture démocrate ci présidence présidentielle bi ba fas am novembre guñu deugmal dëgmal bëgg ba euh, daan ki nga xamantene modi Donald Trump euh, bu ñu demee nag ñu né amna ay chance donté sax gàllankooram Modi, euh, euh lika ko ngir mu wër Amérique xamleewu wala bok waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo doomi Amérique ci la nga xamantene mom la fa nam def leeral yekk Ali Fari Ndiaye xam-xam match ci walum relation internationale. chance moy, amna expérience exécutif, nekkoon na sénatrice ba paré jigen la bo xamné dé symboliser croisement parents ses parents kenn ki Inde la jógee kenn ki Amérique du Sud muy une vision pour xam ni dina aussi jox jigéen ñi ak minorité benn chance ñu identifier wu seen bopp loolu avantage yi mu ra un avantage bi mooy procureur la donc il est connu pour être d'une wax taf rigoureux sur les questions de crime alors que Joe Biden euh, Donald Trump aujourd'hui il dit qu'il ko il est déclaré coupable d'un crime pénal donc loolu mun na nekk ay avantage beneen avantage bi mooy jigéen ñu bari mon encore ko parce que li ñuy wax Russell Wave euh, c'est une loi américaine bo xam ne contre Wade li nga xamné day autoriser femme bo xamné dañ ko mu def avortement démocrate dañ koy jappalé mais républicain dañ ko bëgg changer te lolu dina jigéen ñu bari ànd moom ci kete boobu loolu buñ ci boolee le fait que euh, base démocrate nga xam ne den gauche nga xam ne moo ñu ànd ak Bernard Sender ak les mouvements comme mouvement ak universitaire yi ak autorités yi bu fekkee ne dafa jël un colistier boo xam ne bi nii kuy rassurer nit ñi la mun na créer benn momentum boo xam ne base démocrate dinañ gën a sawar pour dem élection mais faiblesse am mooy la durée temps bi nga xam ne ñetti weer moo si des parce que ñetti weer moo des ci élection yi donc Kamala Harris bu réussir loolu ba pare montrer au pays que moom ci centre bi la nekk nekkul koo xam ne dafa nekk très à yaakaar naa ne dina mën a permettre euh, créer benn momentum boo xam ne nii euh, force yooyu mën nañu mobiliser pour porter ko euh, à l'élection voilà foofu la ñu yemale xibaaru bi ci réew. jaajëf Georges. yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi laan maa ngi la fay njóg wàllu lamb lañ koy tàmbali kii di euh, Balla Gaye 2 moom nag euh, daan ki nga xamante ne mooy euh, daan bu amul ben layam layami bëri nanu mu duma ko teq ko ko ko ci ardo wan ko ni moo ko ëpp doole li halai yi si banlieue bi di wax Balla Gaye bandi géew la te wane Abdoulaye Dembélé itam taskatu xabaar la bu xarañ ci wàllu làmb ji di ko topp ak yooya yore itam site bi ñu duppee demactu.com dëggal na ni Balla Gaye dëgg-dëgg bandi serveur. combat bi euh, entre Tapha Tine ak Balla Gaye Balla Gaye ci favori ci combat bi Tapha Tine moo nekkoon favori te dafa dafa dafa enregistré cinq victoires d'affilée te ñi mu daan champion yu am renom la ay champion yu qualité la daan ah ki mel ni Bombardier ki mel ni mu euh, Eumeu Sène ku mel ni Junior entre autres donc démb stratégie bi mu indi kenn gisul lan la Tapha indi lu ñu mun ndax gis au départ c'est que jël na ay responsabilités am ab arbitre sifflé mu dox ci kaw te Balla Gaye mbër la bi nga xamante ne kenn du euh, kenn du ko toppee parce que beaucoup de toppee il faut nga commencer di dóor mais nga topp mbër di lay auto amoo benn yoon amul benn yoon bi nga xamante ne da nga ko jéem déstabiliser ci ay coups donc foofu dafa péché complètement complètement déception bi woyi parce que Tapha si ci bagaar lañ ko xamee mais Balla da ko dominer ci bagaar bi euh, dóor ko ci kanam bi bi muy nàcc donc loolu nekkoon lu lu lu jaaxal amateur donc cela veut dire que euh, stratégie de taf Fatine Tine quel kenn mënu ko comprendre pour Balla 2 il faut dire que réellement euh, démb bett na Sénégalais et mais bettul ñi nga xamante ni euh, jege nañ ko parce que champion la bi nga xamante ne yu arbitre sifflé dee do ta kaw mebb euh, xéxlo xéxlo la pour japp la dana donc démb lu mu wone vraiment c'était une excellente chose. ñu way ba léegi ci lamb jooja géejawaay mom tay danoo yéwo ak mbégte dëkkandoo ya supporters ya ak ñaan ak balagay Gaye ñëpp nii. léegi nag li seen kanam mooy nu fexeen di ba jàppati keneen def nañ ko def defee acte fatin Umar Mbow def na fa reportage tey ci suba ba dañ na infaq waaw dañ na flag waaw am na droit bu baax def li nga xamante ni moom mooy grasse matinée Balla Gaye nag nekk empereur arène bi daal di song bëree daan ki nga xamante ni moom mooy tafatina nga Balla mooy lam Balla Gaye mooy lam nga taj Balla bu bàyyi bëree mu nga lam amul sens ay démb gan gi daa ñëwoon gaan bi baal di baal di ngan na ngan teg na gaan moo kii far ñu defaral ko bagage Balla Gaye ku ko yàpp da ko xamal Tapha moo la gën a xam ne fukki combat ak Balla Gaye Balla Gaye da daan loolu xam na ko. Balla Gaye nag def ay loolu te mën lu muy def di ab kàddu yi nga xamante ni bile mère famille moo ñu ko dee moom nag ñaari kër rek moo dox diggante këram ak kër Balla Gaye baat bi dem ba dee ndax yuuxu yi mu doon yuuxu dem ginnaaw combat bi. tolof tolof nag mënul ñàkk ci doomu aadama mënul ñàkk. loolu moo taxoon ku nekk yëpp ko waaye ku ne xam na Balla Gaye kuy taxaw ci làmb ji moo la mën. Lion bu Géejawaay daal di kon dikkaat ci arène bi kenn mënatu ko arrêté di ay kaddu yi nga xamante ni dañ koy dégg bu baax a baax ci stafam supporteram ak ay dëkkandoo am ñu ne nag jamono ji benn combat rek la ñuy xaar mooy diggante empereur ak roi de arènes. fi ñu waroon egg yëpp egg nañ fa dem nañu roi jël nañ empereur Modou Lo xam nañu yow xam nga ci dara xam <laughs> xam nañu bu baax a baax. donc donc combat Balla Gaye Modou Lo bu ñëwee rek moo sax nañu nanguwaat roi bi boole roi ak empereur. Modou Lo du jëlaat Balla Gaye ñemeewu ko. bëgg nga mu jëlaat ko. bëgg naa mu jëlaat ko moom ñu jëlaat seen roi bi tegaat ko golf ñu soulager nag. lamb ji kon ubbeeku bu baax a baax ndaxte nag Eumeu Sène ne bëgg na Balla Gaye bu fekkente ni dafa dóor ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine. ñun léegi gars yi la ñuy xaar ñu ñëw amatul si ku ñëw baax.

de Dakar dem nañ fu nekk am nañ expertise ci côté marketing dañu dem seeti ji mais benn parrain lañ am boo xamante ne moo organisé final bi muy muy mairie de Dakar boo xamante ne euh, on ne va pas cracher là-dessus monsieur le maire bi mu ñëwee yokk na suñu subvention mais malheureusement boo xamee lenteur administrative yi tax na bi ñu joué nañ basket bi mais amuñu jotuñu subvention mais terewul dañu dañu dañu dañu takk suñu tubay dem xoole li ñuy def benn benn mécénat bu fi ñëwoon barki démb rek ñu seeti ko muy ancien maire de Guédiawaye monsieur Aliou Sall bi ñu ko seeti jee mu ñëw jox ñu mais joxuñu xaalis dañ taxaw xam signé moom un partenariat boo xamante ne nii bu juddu fii ci Marius Ndiaye et je pense que loolu war na yee ñu bari ñu xam ne basket bi tey euh, sport lay wax sax buñ ñu si jàppee dina dem loolu noonu damay profité lancer un appel à madame la ministre euh, du sport et de la culture et de la jeunesse boo xamante ne xam naa xarañteem si wàllu boobu noonu mais surtout les autorités parce que tay ben société ñëmetul bouger parce que ko dem seeti ji lan mu lay wax moy dañu taxaw parce que euh, circulaire génne na amatuñ droit bouger dañu tere ñu génne xaalis te loolu noonu dama damay wax ne jaaduwul peut-être que manque de compréhension moom mais sport euh, du sport du politique ñun dañu wara a ñu ñu éclaté wu dañu wara a ñu vivre son passion

ancien entraîneur équipe bu Taïba ci atum 1970 yooyu la woon moom nag gënal na démb nañ ko fas yéene jëm boromam tey ji ci ngoon bu nu julee tisbaar ba noppi ca Thiès. Mm. ñu koy jaale mbokkam ak mu bokkal génération. te yéen yàlla xare ko aljana xare aljana tam Maxtaar Jaay amin yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana moom moom li koy jaar kon ay mbokkam naka doon tam doyen Abdoulaye Diaw. Sumari point com Touba Darou Salam Caro Prestige ak association bi lekele assureur du Sénégal ci projet Bidium, si digitalisation attestation d'assurance automobile Nous ni may li ci yene kay li ci kay ci jërë ngeen jëf falak fol yi am ci réew mi Le Quotidien xëy na dañu wax ay fay yu ci am yëral xët njëkk journal bi Mouhamadou Lamine Diallo mi ne woon jiital ENA tëbal nañu ko teel a tax ñu wàcce ko journal bi nee nañu mi ngi jugee ci réeroo gu mu am diggam ak i njaatigéem jiili loo mi ne woon coordonnateur bu agropole yi ci réew mi moom it Le Quotidien nee nañu mi ngi jéebaane wàcce gi ñu ko wàccee ndax dafa gis ne tegewul ci yoon contrat la fa amoon a dem ba ba wàccee ko ci loo ne tegewul ci benn yoon journal Les Échos xëy xibaar bi moom it ñu def

que journal bi ne nañ dafa far mel ne luy bëgg a xewit wi Serigne Gueye Diop mi ñu def ministre commerce ak industrie yéen bi ne nañu ak njabootam la yóbbu cab kabinem ndaw si ñu def ministre affaires étrangères di Yacine Fall moom it yéen bi ne nañu am na jenn doomam ju jigéen ju ñu takkal ndombal tànk Fallou Fall sañ bokk l'observateur ne nañu caaxaan jëliwu ko fi ndax dafay yàgg ki njëkk a doon président de la république bu Sénégal ak énergie Abdoulaye Wade ñëw moom joggati leen ba jël doomam Karim Wade dénk ko asamaan ak suuf jël ab jarbaatam Lamine Faye def ko garde corps jël doomam ju jigéen di Sindiély Wade dénk ko Fesman demoon na fi moom lay Wade ba jël ab jarbaatam bu ñu naan Ndiougo Sakho dénkoon ko SAPCO ba mu yàgg mu def ko directeur de l'urbanisme Abdoulaye Wade dem Macky Sall ñëw moom far xadd kaaba gi jël rakkam Alioune Sall yóbbu ko ci CDC caisse dépôt et consignation xeex jëf jooje ak doon ko ŋàññ ko jébaane ñëwal ba ko di ko def tey fa mu feeñee mooy bi ñu jëlee xale bu jigéen bii di Sophie Zingasi def ko directeur APDA te moom Sophie Zingasi ndayam Yacine Fall mooy ministre affaires étrangères bu Sénégal bàyyam di Abib Si conseiller la bu premier ministre Ousmane Sonko te coow la yamu fi ndax Serigne Gueye Diop mi ñoom Jomaay Sonko def ministre industrie ak commerce ñoo ngi wax ne moom doomam ju jigéen ak jabari président Macky ak nguuram tege ba taxoon askan yu goqi leen ci ñi ñuy mbambaka coow ak jonge ci réew mi kenn ca di Yacine Fall ministre affaires étrangères moom la journal enquête xëy ci xëtamu njëkk boole ceeg di ñu xibaar ay coppite yu mag yu nar a am fan yi ci ambassade yeeg consulat yi consul bu Sénégal ba ca Paris di rakk ci Abdoulaye Daouda Diallo enquête dina kay nee nañu moom ak wàcce mi ngi xeeñ ci jamono jooju journal las xëy ñu wax ne am na ndaje mu ñuy amal tey ji ak suba ca saliga ca Mbour ngir waxtaane fa yoon yi ñu war a jaar ba indi ay modification ci règlement intérieur assemblée nationale arène nationale ak lambu jafa amoon démb mu di combat bi doxoon ci diggante Tafatine le géant du Bawol mbooloo borom taq ci rip ak triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye public yi bind ne gaynde gi mu di Balla Gaye bu doon day nelaw la si ne kay ne a Triple S doomi Double S di Balla Gaye 2 dafa japp Tapha Tine rokkos koy kurpañ ba dajj kanam nga kanam nga ba yaq yàqu yaxet yóbbu ko ardo dan ko tegal ko ci sursoi tek ci mel ko ku far jéppi Tapha ndax li ko bindal ci xëtamu njëkk moy ci prix Tapha sumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige ak association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen doon may li ci yene kay yi gis-gis mbokk yi ñu yegg léegi ci gis-gis nag li ñuy waxtaanee jëm ca ci wàllum euh, coow li am gannaaw nomination yi mujj yi ñu nemmeeku ci euh, nguur gi loolu nag euh, jur coow ku ci nekk di commenter ngir waxtaan lu mel nag daañu ci ànd ak Ibrahima Sam Ibrahima Sam di formateur ca ENA école nationale d' nekk tam consultant wala ressources humaines ak droit du travail monsieur Sam ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu El Hadj Ndiogou. jërëjëf ñaan tam ci waxtaan bi ak Abdoul Aziz Diop ci société civile. Abdou Aziz ñu ngi lay eh, jërëjëf jërëjëf damay tàmbaleeg Ibrahima Sam monsieur Sam yow sa xam-xam màcc na ci wàllum ressources humaines eh, gis nañu bi passé nit ñu fal eh, ci conseil des ministres ñu naan kii doomu diw la kii mbokk diw la wala kii jegeñaali diw la yéen en tant que ku xam-xam màcc wàllu ressources humaines yu mel noonu boo ko gisee nan na leen def lu ngeen ci nu ngeen koy gisee. man euh, question euh du lu bees mën naa ni ci histoire du Sénégal euh, ay nomination euh, en tout cas ci administration bi wala sax ay poste de ministre ak ci établissement public yi kër yu mag yi liggéeykaay yi nga xam ni nguur gi nguur gi moo ko moom poste yoo xam ni la ñu bare lañ koy bëggandoo te lu ñu bëgg nag euh, ku nekk am loo ci seenu pour wane euh, boo ci taxawee ban jeexital ngay indi ci liggéey bi ba mu gën rafet citoyen bu nekk am nga sañ-sañ ni liggéey bii de bu ma ko joxee ma taxaw ci waaw loolu moom xam naa ni moo tax cooy yi bare toujours ci yu mel nii depuis euh, man li ma fekkee diggante bi ma commencé liggéey. président Abdou Diouf ak président République ak euh, régime yi fi jaar yëpp mais mais problème bi monsieur Sam moo di ne ñi nga xam te ne ñoo fi nekk di ñoom Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñoom dañu waxoon euh, rupture mooy am maanaam euh, ñi ni fal ci wàllum administration wala yenn sociétés yi day nekk ñoo xam ne da leen tànn gannaaw seen compétence maanaam appel à candidature ci dossier leen di miir moom moom amul est que du loolu moo jur mbetteel gi ci askan wi. waaw man nag eh, eh, eh, consultant bi ma doon fi ma toll nii ak expérience bi ma am bi liggéey ci administration ak li ma ci entreprise li ma ci mën a wax mooy euh, Sénégal moom constitution bi may na président république ci poste yi hmm. nga xam ni ay civil ñoo ko yor wala ay militaire mu tabb ñu ci war a tabb loolu am na hmm. waaw le président mon euh, constitution moo ko qui hmm. ministère aussi ak agriculture bare kilifa yi ko jiite nous nañu 5 sañ yi ñoom tamit di tab ñu man qui euh, dama xam euh, gestion des ressources humaines multi administration wala qui agriculture yi ci dëkk àddina yi à qui yëpp ak organisation internationale yi organisation Nations Unies UNESCO francophonie poste yu mag yi daal yi xam ne am na solo yoo xam ne ñu ngi war a jox dañoo war a xarañ parce que bu ñu wax xarañ Sénégal Sénégal du mën dañuy dégg nit ñi naan compétence compétence déet bu ñuy tabb nit dañuy xool qualification wam xool ndax am na expérience boo xam ne bu mucc ayib ñaar yooyu ngay xool ndax nit ki mi ngi ci moom nga am sañ-sañu tabb ka hmm. compétence mooy loo xam ni

bon jaadu na wala le, man euh, ma euh, ci man wax le Sénégal muy ay assises politique kilifa yu bare yi nekk ci politique bi ci avion yaga ay kilifa yu mag euh, bi jaar-jaaru Sénégal le ba legi gis nañ ni administration Sénégal. Notre administration pays africain barré, bare li koy encore. mauvaise gestion bi bare mauvaise gouvernance bi bare nit ñuy tànnee nit ñi jël jox poste yi aussi am na ci part mooy indi mal gouvernance parce que la plupart la ñuy nana ay li Sénégal yi ñuy tuddee nomination yu am a neex parce que ñoo bokk dëkk ba ñu jógee man Ndar laa dëkk wala ñoo bokk région ñu région de Saint-Louis wala ñoo bok euh, tarixa euh, wala ñoo bokk parti parce que nomination buñ ko tégué ci yooyu rek seeteñ ci loolu rek lañ ko ték nomination yi mu am té ñu coow lu ci àdduna bi yëpp du Sénégal rek mm-hmm. pour dal nomination mm-hmm. ci poste yo xamni dafa la qualification élevée waxuma emploi d'ouvrier de wala emploi d'emploi wala agent maîtrise mais emploi de cadre de haut niveau cadre dirigeant. voilà monsieur Samb nañ ñëwaat ak yow. waaw waxtaan wi nañ ñëwaat. laata loolu dañuy ànd ak Abdou Aziz euh, Diop euh, moom bokk ci société civile euh, monsieur Diop ba njàngat ci ni nga xamante ne noonu faloon nit ñi dafa mel ni yaama neex yi wala ñoo bokk parti ak wala ay mbokk ak ñoo bokk dëkk moo ci ëpp ba njàngat ngay def ci mbir yi ak coow li ci am. jàngat bi ci def mooy

ak ñu melni ni ñoom ay Fodjibo Ka Samba Niasse ku mel ni Bruno Jaka nga xam ne liggéey naa quatre présidents mais dafa amone li ñu naan bàmmeelu pays l'état est sacré à partir de 2000 mille ci li ñaan changer changé paradigme ñu gis ni une nouvelle race ñoo xam ils sont sortis du néant li leen may fonction bi rek moy seen appartenance politique gis ni ñoo xam mënu sax mosuñu liggéey ñu nommé leen ministre en parallèle ñuy leen ay direction légui nag loolu continue yaakaar dina day mais à partir de 2012

nous dindi parce que nous dañ ko boole seen programme mais appel à candidature surtout pour certains postes stratégiques mhm. Et li ñu gis même léegi suñu defee appel à candidature suñu voté loi parce que derrière bi dootu parce que fexe nañ ba gaaw nommé ci ay secteurs yoo xam ne c'est des secteurs mhm. très stratégiques ah, ah. de la nation. parce que nous avons la candidature pour ñu def ko foog mu jaar assemblée nationale des am loi bu ñu voté moo tax defuñu ko est ce que loolu. waaw euh, mais c'est pas une raison c'est-à-dire que hmm. appel d'or. dafa am loo xam y a des critères on a eu toujours des grands comités ñoo xam ne c'est des

avant ah, de koy signé wala projet de décret draft sax parce que a une nouvelle race maintenant qui on est dans les institutions de l'État selon li de indi beneen di élage tam la problématique ñu que ci les financière yi ñun dañ ko a wax am direction qui est dans ka parce que nous sommes a am collision avec le financement des partis politiques parce que avons une loi sur le financement des partis politiques une loi sur les conflits d'intérêts donc rëq-rëq yi bari mais dans ñu ngi doon rupture mais actuellement, Bisney, c'est loin d'être une rupture, c'est la continuité et dans la mauvaise direction. Mhm. Euh, jërëjëf Abdou Aziz Diop euh, ne ñu àndaat ak yow laata la dañuy àndaat ak Ibrahima Sam euh, wàllum rupture boobu tey nees mën def ba nga xamante ne mbir yi est-ce que dina mën a tuddee soppeeku déjà que poste yu bëree bëri dem na benn jour rek quatre-vingt-une nomination quatre-vingt-une nomination mooy alerte bi ñu weesu est-ce que mbir yi rëccante ko fi mu toll nii mën sa mën naa nekk ci mbir yi ci wàllum nomination yi. ah loolu loolu boo xamee. lan mooy gestion état ak gestion des ressources humaines Alors, ah, loolu mënul am parce que gérer gérer euh, entreprise wala état mënoo ko def dans la rigidité ni ku xas ba tabb rek jeex na kenn mënu ci euh, man li ma Euh, parce que aussi booy Khalat, Khalat bu rafet moo gën xalaat bu ñaaw ci lu mel nii parce que lii dafa soxal réew mi yëpp assises nationales yi ñu bari ñu koy fàttaliku assise eh, politique woon conclusion ici ci ëpp maanaa moo di Sénégal la woon fi taxawal appel la candidature pour liguer yo xamni ci état bi la nek ñu jox ko ñi gën xarañ te ñu xarañ ñu dal leen di euh après une compétition waaw bu dee poste sangam ñu ne am ñoo xamni ne ñoo xarañ ci li yan diplôme yi am fa lañ ko ndax école yooyu école yu am maanaa la école yu reconnu euh, lu weesu loolu ndax am nañu jaar-jaar jaar-jaar yooyu fa lu jaar ndax def nañu fa liggéey ba am na jeexital cadre moom cadre dirigeant moom noonu lañ ko nommé ci adduna yëpp donc te te régime bi soo ko yegg si. même aussi enquête de moralité nekk loo xam te ne lu am solo la xool nit ki mooy kan. xool tamit loolu lépp loolu lépp ca la euh, bokk régime ñoom nee nañu seen programme. après la candidature bu ñu toogee daañ ko doxal ñëw nañu doxala buñ ka, parce que premier xaw deuxième xaw ma conseil des ministres euh, nee nañu cadre juridique bi mhm. taxawagul pour ñu xam nan lañ koy doxalee ak yan direction lay nekk parce que aussi loolu mën nañ ko mën comprendre parce que cadre juridique boobu bu fekkee ni loi lay nekk assemblée nationale moo koy adopté

ak Côte d'Ivoire nekk nii est-ce que parce que Sénégal nag eh, Sénégal nag dëkk bu am daraja la monsieur Samba est-ce que yéex na fi mu toll nii daanaka poste yëpp dem nañ de fi mu toll nii moom daanaka loolu moom bay mooy bu si yéex na eh, Côte d'Ivoire mënuñu toll foofu Sénégal bi des gannaaw moo tax man am naa yaakaar ni weer yi di bu cadre jury bi taxawee appel à candidature yi daan ko mën doxal xale yi nga xam ne ñoom xarañ nañu ku nekk mën a déposer dossier tànn bi

ñi nga àndaloon gañee nga war a tabb du tabb keneen et que affaire ay appel a à candidature yooyu yëfu caaxaan la est-ce que euh, loolu ñu ko xoolee dëgg du wax ji loolu la. non xam nga loolu moo tegul fenn parce que tey jii ñu waxee l'état est au-dessus des partis les partis c'est des associations privées su dee ku gañee dangay ngay ñëw ak say nit wala da nga bëgg a def euh, récompense wala li euh, ñu le prix nan laa ko mën a waxee sax ñi nga xam ni dañuy dañuy contribuer. dañu aussi le retour de l'ascenseur et c'est de l'eau. parce que Sénégal la mu ñu la un état très respecté avec des fondamentaux mais wax naa ko sànq c'est à partir de 2000 mille léegi nga commencé gis ay fonctionnaires milliardaires ay politiciens milliardaires ñoo xam ni du xam-xam du jar jar, du maggi, du jub mais parce que c'est parce que euh, euh, euh, y a le clientélisme il y a le népotisme comme ni ñu koy waxee léegi nag fekkee ni tey ñu ngi xaar comme dañ ni rupture nous avons annoncé. Hmm. après la candidature dans les postes stratégiques surtout parce que nous na lépp mais dans ces postes stratégiques c'est toujours possible on a tellement de sénégalais compétents et il y sénégalais qui habitent ne dans différentes institutions au niveau mondial. parce que li est fi jëlee ñu gën bari envie pour nous parce que système bi li muy demee la gis xam liggéey indi sa CV des présomption de connaissance et de compétences ak ça ne reflète rien mën nga dugg ci internet bi gonfler def fi nga jaar yépp pour CV ñu ñoom sur cette base et li ci graw mooy y a des frustrations aujourd'hui dans l'administration mhm. nga indi ko xam dafa ñëw du jaar jaar du xam-xam matewu ko mu mu ilif ñoo xam ne ils sont sous sa tutelle mhm. souvent le premier niveau c'est euh, de de d'incompétence c'est l'arrogance mhm. soo gisee nit ku matul li mu doon soo ko joxee lu mu attanul dafay arrogant et souvent aussi c'est la défiance et c'est ça qui est dommage El Hadj je pense que le monde nous avons des fondamentaux maintenant nous je sais que ce sera très difficile mais nous jël vraiment li ñu naan mu slogan mais nous devons un principe comme les parmi les principes de gouvernance et la sacralité de l'État surtout ça c'est ça qui est important Mhm. jërëjëf Abdou Aziz Diop ñi lay sant di lay gërëm euh, waxtu wi daf nañu ñi koy sant bu baax di koy gërëm Abdou Aziz Diop bokk ci société civile del tam di gërëmaat Ibrahima Sam di formateur ci ENA école nationale d'administration nek tam consultant en ressources humaines et droit du travail mbokk yi mu nekkoon gis-gis na mu tam xibaar yi El Hadj Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi may sa mbay ci machine bi ak Abdoulaye Diop euh, production Aliou Ba de Keita ñi gërëm bu baax a baax Awa Mbaye chef d'édition ci kanam tuddi yëgle yi ak tàkk ak soxna Aminata Ndaw jaajëf Thian beek RFM yendoog jàmm